بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك ربك بمجنون mbokki duma guddal wax maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di dalal ñëpp jam mbaadiwlu mbemol be kontonna musilime kondondiro la wala mo kisandiro anin nema siyandiro bewle dan la alabulu alama ala ya kaliye kondondiro ko la fana mbali jiyala musilime ala jiyaro la lu ndalun dañimal mbe jiyala mbe duwala nga folo bismillahi rahmani rahim nga timmandi alhamdulillahi rabbil alamina bismillah ngi nuyu ñëpp ñi fi teew eh, kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen ziyaare di leen eh, ndokkeel mu ci ñëw gii ngeen xam ci ni kenn ku ci nekk bàyyi na ko liggéeyam bàyyi na ko eh, njàngale ma muy jàngale bàyyi na ko la muy def ñëw ci lii nga xam ci ni ñun dañ koo woote moo tax ñu fekk leen ngeen nekk ci muy seen liggéey société bi ñuy wax c 3 société la buy def verre ak aluminium ñoom gouvernement Sénégal dañoo wax ne képp ku am société ci ci àdduna na nga am loo xam ne activité boo xam ne mbaal looy génne def ko ci sociale société bu buy liggéey rek da war a génne loo xam ne action sociale la c 3 nag moo société bi ñu ëpp ca ñu nekk ci société bi ak ña ko sos ñu ay sëriñu daara lañ yoo xam te ni masalan yàlla dogal ñu dem di yaxantu di commerce suñ borom barkeel ko comme que mbir mi nag comme que waa daara la te barkeel na lañ ca amee ñu ñëw delloo si ko ci daara kon c 3 loolu rek moo ko ci indi waaye nag liggéey la boo xam te ni nim ni ñu nekkee waa alxuraan dañ koy dañoo jël jiital waa alxuraan ñoom ñu yor liggéey ba sëñ Saam loolu moo tax moom moom ñu ànd ak moom ñoom lépp loo xam te ni moo jëm ci wàllu xam-xam bi ak lu mat di rek ñoom ñoo ko jiite Cheikh Touré moom dafa nekk koo xam ne dafa nekk ci ginnaaw rek di leen dooleel kon loolu moo waral taxawaay bi tamit ñu ànd ci ñu ngi gërëm ñëpp di e, sant ñëpp. li ñu tax a jóg mooy xëy na kii tënk na ci tuuti delloo si maanaam li nga xam ne moom lañ xamoon démb fexe ba daara yi ni ñuy mokkal alxuraanu karim mokkal gi avancé na lool waaye xam ngeen ni bind alxuraanu karim nañ ko doon defee démb moom wax dëgg yàlla tolluwut ak mokkal gi loolu nag la charité bi bëgg a delloo si ndimbal yi nga xam ne mi ngi koy def daf ko jëmale ci côté boobu di organiser concours bindu alxuraan karim boo xam ne doo ko xool da ngay mokkal parfaitement mën a bind ba kaamil ba mu jeex fu ne loo xamante doo doo ko gees doo ko xool loolu nag day laaj maharaat yu bëree bëri aussi day laaj mokkal day laaj xam rasmu day laaj xam bopptu day laaj tam maanaam loxo bu loxo bu loxo bu rafet loxo bu rafet euh, bind yi bëri na la daara yoo dem kaamil yi bëri na mais daara joo dem kaamil yi ya nga fay fekk ay sénégalais bind ko KM bu ñu bindee Maroc bu ñu bindee Algérie ak yeneen rek moo fi gën a bari mais dañ bëgg nag actuellement ñi ngi ci loolu kaamil boo xam ne kaamil sénégalais la bu ñu ñëw séddale ko daara yi comme ni ñuy séddale ajza yi incha allah loolu dañ bëgg nag bu demee ba di ko ba àgg ci ña koy bind mu nekk ñoo xamante ne bi maanaam dañuy jóge fu nekk donte actuellement nii nii nii am nañ koo xam ne mi ngi koy bind mais nag dañ dem ba bëgg mu nekk loo xamante ne bi régions sud dañ ciy jàmbaare comme ni comme ni ci digg mi jàmbaaree loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax ñu jog ñu xam ne ni concours bi kon actuellement deux euh, mille vingt cinq dana am incha allah taala ngeen fexe bay ku ci mën a bokk bokk ci dañu leen defal yéen ay concours yoo xamante ne bi maanaam raison studio rek dañ leen beral seen concours bopp su ñu demee nag ba nga xamante ne bi mën nañ compétir ak ñu bindi lii su boobaa moom ku ci àgg rek da nga mën a am maanaam ñëw def ci concours national bi kon daal lii mooy tànk Ibrahima Souli yi tax maanaam ñu jóg ñëw joxe téere yi joxe euh, baas yi itam teddale euh, ko xale yi ñu di ci jàng bind téere yi itam ñu ñu di ci xool di ci bind fas yéene itam maanaam ñu bokk ñi nga xamante ni dañ naan concours bi ko gàñe ña nga jógee Bunkiling wala ña nga ko jógee ña nga jógee Goudomp wala ña nga jógee Sédhiou incha allah taala fi fi sanawal xan incha allah euh, dañoo am mbégte lool am ak kontante di rafetalu seen taxawaay ñoom kontaan nañ bu baax a baax ñu ne Euh, kii mooy Dramé moom magu Habib Dramé la waaw kii Cissé moom jaaru euh, mi la nekk daaw euh, dem ngeen ci daaram même kii tam dem ngeen ci daaram ñu ne loolu rafet nañ ko lool te am nañ mbégte lool ak kontante di rafetulu seen taxawaay di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan ak weer ñu ne li ngeen di indi fii lenn la loo xam ne ñoom kontaan nañ ci lool ba eh, Dramé di wax di indi benn xadis eh, ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, yitte bu mu am yi bi mu am ci xale yi jàngal leen Alquran te ñu xam ko mokkal ko ñu loolu moo tax ñoom lii kontaan nañ ci lool lool lool lool sax soñu nañ tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi ñoom tamit ñu taxaw taxawaay boo xamante ne taxawaay bu dëgër lay doon fesal liggéey bi liggéey bi jëm ci kanam comme ni ngeen ko defee ba mu egsi fii ñun tamit ñu defee ko noonu bem law ci département bi yëpp comme suñu maam yi nu ñu ko nekkee woon nu ñu ko daan defee loolu na am comme ni nga ko waxee loolu moom euh, mooy seen kàddu euh, dañ koy tënk rek kontaan nañ bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan ak wer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ربك بمجنون